Askia Hi point Dakar novembre 58. Jour mémorable pour les Tidjaniou ou plus précisément pour les unions fraternelles et daïru Tidjaniou du Sénégal. Saïd Mohamedou Moustapha Sy, fils aîné du Khalif Ababakar Sy, va pour la première fois prendre la parole devant les milliers de fidèles. Il va bientôt prendre la parole et il s'adressera certainement en sénégalais, c'est-à-dire en Wolof, pour s'adresser à milieu de fidèles. C'est qui va parler. Écoutez-le. léegi ñu ngi nuyu président union Grand Dakar usine biscuit président ba moo di ku ñoo wax Doudou ak mbooleem ñaar fukki daayira ak ñeent yi nga xam ne ñu ngi topp ci gannaawam ñu ngi leen duy ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci sa ak sa sant gannaaw loolu ñu ngi nuyu président union Pikine président ba mooy ku ñuy wax Guèye ma ak mbooleem daayira yi nga xam ne ànd nañu ak moom di ñaar fukki daayira ak juróom ñu ngi leen duy ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci sa ak sa gannaaw loolu ñu ngeen nuyu président yi ñoo yaraa ku ñoo wax Ibrahima Samb ak juróom-ñeenti daayira yi nga xam ne ñoo topp ñoom ñëpp ñu ngi leen di kenn ku ci nekk oh. gannaaw loolu itam ñu ngeen nuyu président yi ñoo caaro yi ku ñoo wax Ibrahima Sarr moom ñeenti daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa yi ñoo yeen ñu ngeen nuyu président bu ku ñoo waxte nga ma Serigne Ndiaga Ciss ak juróom-ñeenti daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant yi ñoo jas ñu ngi leen di ñu ngeen nuyu président bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ku ñu wax Abdoulaye Faye ñu ki juróom-ñetti daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak yi ñoo kees li nga xam ne président ba mooy Serigne Ayes Seck ak juróomi daayira yu topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa yi ñoo mbuur yi nga xam ne président ba mooy Mouhamed jaw ak juróom-ñaari daayira yu topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa yi ñoo Louga ñu ngi nuyu président ba ku ñoo Ibrahima Diang ak ñaar fukki daayira ak ñeent yu topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci tur ak sa sant Union ñi ñu ngi président ma ku ñuy wax Serigne Omar Gueye ak juróom-ñaari daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant Union Ndar ñu ngi nuyu président ba ku ñuy wax Alxaaji Mbay Siise ak fukki daayira ak ñaar yu topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa ak sa Union Risatol yi nga xam ne président ba mooy Xalil Ndaw ak ñeenti daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant Union Gosaas yi nga xam ne président ba mooy Serigne Mouhamadou Diagne ak fukki daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci satur tur ak sa sant Union Kaolack yi nga xam ne président ba mooy Papa Badiane ak juróom-ñaari daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di kenn ku ci nekk ci sa ak sant union Dakar Médine bi nga xam ne président ba mooy Cheikh Thiam ñu ngi ko nuyu moog 47 daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur sant union Yoff bi nga xam ne président ba mooy Serigne Mbaye Xulle ak ñetti daayira yi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa ak sa sant union Rufisque mi nga xam ne président ba mooy Serigne Malick Dieng ak ñeenti daayira yi topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant yi ñoo yëmbal bi nga xam ne président moom mooy sëriñ Abdourahmane Sow ak juróom-benn daayira yi topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant yi ñoo ndànd bi nga xam ne président ba mooy sëriñ Aly Kane Dieng ak ñetti daayira yi topp ci gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant yi ñoo ngumba bi nga xam ne président ba mooy Serigne Cheikh tey ak juróom-ñaari daayira yu topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant union bi nga xam ne président ba mooy Serigne Mouhamadou Siis ak ñaari daayira yu topp ci gannaawam ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant gannaaw loolu itam kilifa yi nga xam ne ñëw nañu ci palace bi ñoom it ñu ngi leen di nuyu ku demee ni ki ku ñuy wax Serigne Souleymane Anne ca Tooki ak ku ñuy wax Serigne Sosé Camara ca Jurbel ak sëriñ Qasim Jaay ca Ngumba ak sëriñ Umar Jaay ca Ngumba sëriñ Alxaaji Racine Bay ca Louga sëriñ Alxaaji Mor Sarr ca Njaañ sëriñ Yaatma Njaay ca Ndar sëriñ Madun Faati Gay ca jàmm gan waalo sëriñ Alxaaji Ahmadu Jang Mbuur sëriñ Moustapha Fall ca Mbar sëriñ Ahmadu Mbay ca Ndand sëriñ Abdoulahi Jang ji Dakar waalo sëriñ Ousmane Beng ca ji Dakar waalo sëriñ Maguette Gay Ndar ku ñuy wax sëriñ Omar Jaw ca Ndar ku ñuy wax sëriñ Biran Sise ca Konakiri sëriñ sëriñ Mor Sall Nganna Keel sëriñ Ibra Njaray dégg ma ca Bëlgëy sëriñ Ibrahima Sall Yaraax Tefes sëriñ Mbay Jóob ci Yaraax Tefes ñooy ñëpp ñu ngi leen di kenn ku ci nekk ci sa ak sa am na ku ñoo wax itam Moussa Diop président union la ca deen ak ñaari daayira yi mu àndal ñoom ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa ak sa gannaaw loolu itam ñu ngi leen di xamal ni ñëw bii ngeen ñëw pour jëm ziar général bi ñun ci suñu wàllu bopp kontaan nañu ci bu baax a baax gannaaw loolu itam ñu ngi leen di ndokkeel ci gàmm gi nga xam ni ci la ñu jóge barki demb mu di jóge bi nga xam ni jóge ngeen ko fii pour dem teewe ji gàmm ga ji Tiwaawan loolu it ñu ngi leen ciy ndokkeel di leen ndokkeel ci ziar bi ngeen ñëw tey ndax dafa fekk. lu waral tax ñu waxoon leen ni palaasu gàmmu ga ca Tiwaawan na ngeen ca dem dafa di loo xam ni Seydil Hajj Malik radiyallahu taala anhu dégg ma moo ko sosoon gannaaw ba mu fa bàyyi ko Seydi Abubakar nekk fa moom itam di taxawee gàmmu ga ba xëy wuy ji boromam loolu moo waral tax ma lool ni bés boobu bés la boo xam ne na ngeen mën a def incha allahu taala na ngeen dew teeb ca place ba seetaan gàmmu ga siyaar si réew ba ko siyaar si El Hadj ku ñibbisi jëmmu dem bi nga xam ni moom ngeen demit teew ca place ba seetaan gàmmu ga ziar si réew ba kër ziar Seydil Hadj Malick walbatiku dellu cee gërëm bu baax te di leen ndax jëmmu demin ba dem ngeen ci kaw teggin yar bu mat sëg yëngalu fa dara waxu leen fa lu ngeen warul wax defu leen fa lu ngeen warul def ba walbatiku dellu si fii loolu ñu ngi leen ci gërëm te di leen ci sant da leen yóbbu woon dem ngeen defi ko ba mu jeexee walbatiku ngeen dellu si gannaaw loolu itam ñi nga xam ni ñooy admin garde yu nga xam ni yii ñoo ñu doon wattu ca bés ba ci mboolem koo xam ni jóge nga fi dem Tiwaawan ba nga xam ni def nañu gàmm gën ñu ko bëggee te dara yënguwul te yépp seen taxawaay ak seen woto tax lool ñu ngi leen ci gërëm bu baax te di leen ci sant ndax nit su fekkee ni def di sa kilifa ba noppi ah te sa diine xëy na mën na am yoonam mënoon na ci bañ a nekk sa tariqa yoonam mënoon na ci bañ a nekk waaye lépp loo yëngal ci sa diine ak sa tariqa ak wàllu Seydi El Hadj Malick wàllu Seydi Aboubacar mu ñaw taxawu la wattu la ci mbir ma ba mu jeex loolu war nga ko ci gërëm te ko ci ba ci bésu tey bii it ñoom ci seen wàllu bopp ñëw nañu fi ci kaw wattunu ak taxawunu kon nag loolu ñu nit ci suñu wàllu bopp ameel nañu leen ci cant dégg nga te war nañu leen ko jotal ba ñu dégg ko ci seen nopp ñu nit war nañu leen di dimbali ndax du ñu bàyyi ko ci ay kilifa yoo xam ne ñoo leen di yebal ñuy ñëw ci ñun te suñ ñëwee itam ala kulli xaalin ñoom ci seen wàllu bopp service ba leen ba leen seeni kilifa yebalee danañu ko taxawee doxal ko ba mu jeex tàkk ci kaw yar ak teggin kon nag ñu itam war nañu leen dimbali déggoog ñoom ci wan yar ak i teggin ñu doxal service bi nañu ko bëggee ba ba ñu fi bàyyi ko. gannaaw loolu itam ni ki waa ni chemin de fer ci seen wàllu bopp ñoom it ñu ngi leen di gërëm ndax def nañu ay saxaar ci suñuy disposition ñu jóge fi dem ci awan dellu si fii te ci biir loolu wàññil nañ ñu paas ci dem ak dikk loolu ñu nit ameel nañ leen ci cant war nañ leen ci sant te loolu yëpp bëgg nu dimbali ci suñu diine ak suñu tariqa ak wàllu Seydil Hajj Maalik ak Seydi Abubakar moo tax ñu defal nu ko gannaaw loolu suñu bokk yi jigéen yi nga xam ne bàyyi ko nañu fi dem ba Tiwaawan ngir yàllaak di taxawu nit ñi di leen toggal ñoom ci seen wàllu bopp ngir bañ ku xiif wala ku mar ñoom it ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci coono boobu te di leen ci sant ndax ñoom ñëpp ku ci nekk yow ci sa wàllu bopp bi nga fiy bàyyi ko xëy na ñi nga xam ne mën nañu yóbbaale leen ci seen i yóbbaale nañu leen ñi nga xam ne mënuñu yóbbaale seen njaboot wut nañu ñoo xam ne du leen fa bàyyi ñuy wattu seen njaboot bay ñëw te loolu yëpp coono la kon nag coono boobu ñun war nañ leen ci gërëm bu baax te di leen ci sant ndax mboolem yéen ñi nga xam ni yéen a teew tey ci place bi te nga xam ne tey yéen ci seen wàllu bopp yéene def formation union yi le kenn ku ci nekk da nga amoon bëgg-bëgg ci Seydi Aboubacar mu nangul la ko ci dundam ba xëy wuy ci boromam yaakaar naa ni loolu képp ku nga xam ni kii it da nga taxaw ci bëgg ci am dara loo xam ni dégg nga yaa ngi koy diingat daf lay doon loo xam ni coono moo cee xale dikki ëllëg rek waaye njëriñ du ca bari ndaxte daaw ci 8 décembre 1957 ca ziyaar ba booba defe naa union yi ñu ngi waroon a toll ci téeméeri daayira ak fukk ak benn waxoon naa leen ni man dey mbooloo mi nga xam ne ñoo fii tey su fekkee ñoom du ñu di ay ndomi ak naat ci wàllu sëñ Babacar kon demal xaw ma fu tortoor nekk te tey defe naa ni toll nañu ci ñaari téeméeri daayira ak ñeen fukk ak juróom-ñaar waa ñooy ñëpp su ñu dee toor suñu dee ndobi ne ki naat kon dee toor toor fu mu nekk dana ma jaaxal yaakaar naa ni it Sidi Abubakar lépp lu nga xam ne nii incha allahu taala yàlla wane wan na ko ci doole ci dundam yaakaar naa ni dana ko wane gannaawam lu ko ëpp ngir dégg gannaawam ci la liggéeyam di feeñ képp koo xam ne danga ne nag bëgg nga mboolem sëñ Babacar yokku. nga ci ñaari téeméeri daayira ak ñeent fukk ak juróom-ñaar soo nee ba nga mboolam yokku it yaakaar dëgg li ci xam daal mooy nañu dollee góorgóorlu te dollee muñ ngir mbir mi mbir la mu nga xam ni mii muñ rek moo ci am njariñ ndax jëmmu xeex ak xuloo ak xaste ak wax ju ñaaw du defar mbir mi li koy mën a defar mooy muñ te mag mu day naka Seydi Abubakar li mu liggéey ci yàlla liggéey ko ci àddina bi remplacé ku dégg nga ma koo xam ne ku demee ni ki Seydil Hadj Malick la ak Cheikh Ahmed Tijani nga bëgg ba seen wàllu doxale ko xuloo ak xaste wala xeex dégg nga ma wala wax ju ñaaw du mën a sotti li ma ci xam daal mooy képp ku nga xam ni kii yaa ngi wax da nga jëfandikoo la xadis ba wax mooy gën a noppale xadis ba le ba wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw liyasmut képp ku nga xam ni kii gëm nga yàlla gëm ni bés penc ba am na na nga wax yiw mbaa nga noppi ndax yenn yi du jëriñ dara du dul yee fitna rek la benn jëriñ amu ci te xadis ba dafa wax ne alfitnatu naimatun laana allahu man ayqadaha alfitnatu rajiatun fi biladillahi waadiatun xitaamuha waylun liman ahaajaha hadis wa dafa wax ni fitna nelaw na yàlla robb na képp ku ko yee am beneen hadis bu wax ni fitna kam ré kam gëléem la koo xam ne mi ngi far ci réewum suñu borom waaye yàlla robb na képp koo xam ne yëngal nga yëngal nga noos ba kon nag yenn yi yee fitna la waaye njëriñ bariwu ci te it dafa am programme boo xam moom la fi Seydi Aboubacar bàyyi woon képp ku nga xam ni kii bëgg nga jëfanteeg ci programme bi ñu jëfanteeg yow Seydi Aboubacar dafa nu wax ni ci waxam yàlla nee yonent bi nee na cheikh nee na Seydil Hadj Malick nee na ñu nit suñu bëggee noppalu noppal bindéef yi nañu wax ni yàlla nee na yonent bi nee na cheikh nee na Seydil Hadj Malick nee na Seydi Aboubacar nee na képp ku nga xam ne kii da nga bëgg wax yi ma nee fa waxee nit ñi bari na lool alquran a ngi fi xadis a ngi fi téere tariqa baa ngi fi am na yoo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane moo leen taalif am yoo xam ne Cheikh Hadj Omar moo leen taalif am yoo xam ne Cheikh Hadj Mahi moo leen taalif am yoo xam ne Sidi Abubakar moo leen taalif képp ku nga xam ne ki ba nga waxtaan ak nit ñi waxal ak ñoom ci loolu ndax mooy programme bi Sidi Abubakar bàyyi woon ndax dafa am responsabilité yoo xam ni moom la ñu amee te képp ku nga xam ni kii yow ci sa wàllu bopp responsabilité yooyu la ci war dëgg-dëgg fas nga koy yéenee def incha allahu taala daatal leneen lu dul wax kenn dara ndax képp ku nga xam ni kii bëgg la di la war ci sa diine nga topp doo ko ba mu jeex tàkk li la war ci sa tariqa nga toppatoo ko ba mu jeex tàkk li la war ci sa digganteeg Seydi Abubakar ak Seydi El Hadj Malick nga toppatoo ko ba mu jeex tàkk li la war ci sa digganteeg say mbokki taalibe nga toppatoo ko ba mu jeex tàkk li la war ci sa digganteeg say mbokki jullit nga toppatoo ko ba mu jeex tàkk li la war ci sa digganteeg say xaq dëkkaale nga toppatoo ko ba mu jeex tàkk yaakaar naa ne daa tal leneen lu dul wax kenn dara ndax Seydi Abubakar Seydi Abubakar dafa wax ni al aarif man arafa bi zamanihi muqbilan bi sha'ni aji xam dëgg-dëgg mooy koo xam ni xam nga sa jamono jublu ci sa mbir yaakaar naa loolu képp ko ko def sa mbirum bopp dana la doy lijjanti wala si mbirum keneen ndax Seydi Abubakar li nu mas xam ci moom mooy fank wàllu fank wàllu Seydil Hadj Malick rek bañoon na ko ba daan na wax ni ñetti yëf lépp lu ci waay laal te waruloo ko laal foo nekk di seenu te xamal ni ci sa kaw laa mu di lan mu di diine ji di tariqa bi di wàllu Seydil Hadj Malick moo waral tax bépp nit boo xam ne mas nga laal ci wàllu Seydil Hadj Malick dara lu mu yàgg yàgg yàgg doole ci la mu yàggoon ak foo mën a waxee ci àdduna insha allahu taala dana am bés boo xam ne si yow bëgg daan la tontu kenn mënu ca dara moo waral tax am na jëmmi jamono boo xam ni ñàkkul woon ay bokk yoo xam ni toogoon nañu fi ba mu yàgg ñu bëgg a diiŋaan waxu Seydil Haaj Malik radiyallahu taala anhu waaye bi nga xamee ni loolu am na toog nañu diir bu yàgg ba defee ni sax si dew ba kër mbir ma daf ko fàtte waaye keroog ba muy tontu ñooñale ci diggu jumaa Tiwaawan ñun ci suñ wàllu boobu teew nañu fa yaakaar naa mbooloo mii fi nekk ñàkk ñu ci teew bés boobu la te bésu gàmmu la yépp fa teew te ñooñu du ñoo duggoon ci waxu Seydil Hadj Malick mu ne leen yaakaar naa ne dugg nañu boo xam ne seen yoon nekku fa ndax defe naa ne duñu ngéroo moo tax ndax Seydi Abubakar ci wàllu boppam kenn réerewul li baxru shariati wal xaqiqati la te terewul moom ci wàllu boppam daf daan laaj Seydi El Hadj Malick mu di ko tontu ca laaj ba ndax nee na mas na am benn jëmmi jamono bu nga xam ne bii moom ci wàllu boppam nekk na ndar gis na ca saa ba ñu di fa jëfandikoo loo xam ni ba kanam teeyu metti métti na ca lool mu dal di bind Seydil Hadj Malick radiyallahu taala anhu ba ko Seydil Hadj Malick di tontu tontu la ci loxo Seydi Ahmed si la ko jaarale mu indil ko ko ndar te nee na dafa nekk ci saa ba ñu di fa wasifa suñu dee wasifa ba àggal balaa ñoo ñaan ñu lalli malaan ma loola xolam métti ca mu bind Seydil Hadj Malick laaj ko ko mu tontu ko jaar la tontu la ci loxo Seydi Ahmed mu di ko wax mu di ca wax naan lamma qadara allahu kawni fi qaryatin dar shahidtu amran yastacmiluhu nnaas wa karihtuhu nafsi xatta la amlikaha wa dalika tayidobin bacda alfiraami wa qabla duaai wa bacatu kitaaban li dalika ila xujjati allahi ala alanaam wa nuxbitu almamaadilu alkiram مميز العلماء بالسودان سيدنا وشيخنا ومولانا الحاج مالك ورد لي جوابا شافيا بواسطة السيد أحمد سي مفتيا لي بإبقاء الذوب عند محله إلى تمام دعاء عقب الوظيفة وهذا شبه المسؤول على الله قصد السبيل Sëriñ Abubakar nee na bi nga xamee ni yàlla ma nekk ndar teele naa fa loo xam ne ñu ngi koy ci saa yi ba des sama bakkan teeyu ca daal te loole de mooy lan mooy boo xamee ni wasifa ni ba noppi balaa ñoo ñaan ñu lem malaan ma loola xolam metti ca lool mu bind Seydil Haaj Malik laaj ko ko mu delloo ko tont jaare la tontale ci loxo Sëriñ Ahmed Si muy ndil ko ko ndar mu di ko ca wax naan nañu fa bàyyi malaan ma ba ñu ñaan ba noppi bu ñu ko dindeeti bu ñu wasbaa ba noppi nañ ko fay bàyyi bay ñaan ba noppi ngir xudooru sallallahu alayhi wa sallam maa xulafaa ul arbaati ak cheikh dana ñëw ci place bi te xamuñu seen waxtu dellu gannaaw wasifa gi lay doon xamuñu gannaaw ñaan gi lay doon kon nag nañu baamanteeg teggi ngir ngir seen xaq bàyyi fa malaan ma ba ñu ñaan ba noppi ndax bokkul ci ma dale teraanga woo nit mu ñëw di la gane si jógagul fi mu toogoon li nga ko laaloon nga di ko laal bokkul ci ma teraanga lii mas na dox ci digganteem ak Seydi El Hadj Maalik radiyallahu taala anhu moo tax góor gi affaire tariqa bi mu daan ko niroo nirooleeg affaire pays mu ne ndax bépp nit bu nga xam ne bii daan ko jóg di dem ci pays soo demee ba jub pays ba nee na daa sangu ba set bëj dégg nga ma sol say yére bu agsee ci pays bi daa nuyu buur ba mu dalal la soo ko nuyoo ba noppi moom buur bi dana woo jaraafam jub ak boole la moom mu dalal la mu daan ko niroo mbirum tariqa bi mu di wax naan ndax bépp nit bu nga xam ne bii yaa ngi toog ci xadaratu wasifa nee na soo nekkee ci astaghfirullah al-azim alladi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nee na booba yaa ngi sangu boo nekkee ci salaatul fatiha yaa ngi sol say yére soo nekkee ci baatu laa ilaha illa allah yaa ngi ci pay suñu borom tabaraka wa taala soo agsee ci jawatul kamal suñu borom yabar jaraafam jumal sallallahu alayhi wa sallam mu dalal la loolu moo waral tax gaa ñi nga xam ne nañu ci waxu Seydil Hadj Malick ba ñu ca duggee ah ma xam ne dugg nañu liggéey ndax sa yow ba nga xam naa du ko bàyyi noonu te yàgg yàgg dana tontu incha allahu taala te ñooñu ana lu ñu waxoon du ñoo fekkoon Seydil Hadj Malick taala anhu li wax dégg nga ci xilaafu wahab bi ne wa innahu arada allahu najatana abana min nuurihi alami ñoom ñu ne kat wax ji Seydil Hadj Malick wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko bind ci leeram lool amul te Seydil Hadj Malick wax ni suñu borom tabaraka wa taala yàlla ko bind ci leeram ndax ñoom ñu ni yàlla su fekkee ne bind na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci leeram comme dafay wàññiku te yàlla jomb na ci moom pour mu wàññiku waaye nag dama yaakaar ni jëllale naa li Seydi Abubakar tontu waaye ci xeel rek ci seetlu ci wàllu àdduna manees na ci xame ni loolu ci wàllu boppam mën na nekk ndax ñi nga xam ni dégg nga ma ñooy tubaab yi suñu bokk yu xonq yi yaakaar naa ni yàlla moo leen bind te kon nag waruñu mën a am lu ñu mën a defar loo xam ne yàlla moom war na ko tële yaakaar naa ni sondeel day tubaab yee ko defar te defe naa kenn mën na taal benn sondeel fa junniy sondeel taal ci te du wàññi leeru bi mu jëkkoon taale benn sondeel ngay taal fabal junni jabal ci ndax dana wàññi leeru bi nga jëkkoon taale électricité bi du tubaab yee ko defar ndax dinaa boobu ba koy taal lamp ci Ndakaar yëpp mu leen taal ndax taal gi mu leen di taal dana wàññi ci leeram dara mbindeef man loolu yàlla moom tële ko du mën nekk moo tax Seydi Aboubacar li leen du ñoo ngiroo du ñoo dem ba mu yàgg ñu ngiroo ngir yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa suñu boroom def ko bind ñaari bind def ko bind ci leer gi ma noppi bind ko ci jëmm ji ñoom nag ñu dem ci diggante bindug leer ga ak bindug jëmm ji ñu dugg ca looloo tax ñu ngiroo ndax nee na kenn amul sikki sàkk ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom mi ko bind ci leeram ndax am na ku ñuy wax jaabir mas na laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana awwali shay'in xalaqahu llahu taala yonent bi ni ko yaa jaabir inna allaha taala xalaqa qabla al ashyaa nuura nabiyika min nuurihi fa jaala dalika nuuru yaduuru bil qudrati xaytu shaa allahu taala wa lam yakun fi dalika alwaqti lawxun wala qalamun wala jannatun wala naarun wala malakun wala samaun wala ardun wala shamsun wala qamarun wala jinniyun wala insiyun فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوحة ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والنار ثم القسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله تعالى ومن الثالث نور أنصهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله bàyyi leer ga nag muy wëndeelu ci kattan fu mu ko soob moom yàlla te booba jamono yàlla bindagul lawxul mahfuus bindagul xalima ga bindagul ajjana bindagul safara bindagul malaayika bindagul asamaan bindagul suuf bindagul jant bindagul weer bindagul nit bindagul jinne bi nga xamee ni suñu borom tabaraka wa taala bëgg na bind bindeefi mu séddale leer ga ñeenti xaaj bii mu bind ca déngama xalima gi nga xam ni dégg nga moom la ñuy bind ci lawxul maxfuus bii mu bind ci lawxul maxfuus ci boppam bii mu bind ca arsh mu di ñetti xaaj mu des benn mu séddaleeti ko ñeenti xaaj benn ba mu bind ci ñi nga xam ne ñoo yenu arsh ba ca des mu bind ci li nga xam ne moo des dégg nga ma ci malaayika yi ba ca des mu bind ci kursi mu dese mu deseti benn xaaj mu séddale benn ba ñeenti xaaj bu jëkk ba mu bind ci asamaan yi ba ca des mu bind ci suuf yi ba ca des mu bind ci ajjana ak safara mu dese di dégg benn xaaj mu séddale di ko ñeenti xaaj xaaj bu njëkk moom mu bind ca dégg nga leeru gisu jullit di yëpp dégg nga ma ci la ko bind bi ci des dégg nga mu bind ci seen leeru xol wa hiya almaarifatu billahi taala mooy xam-xam bi ñuy xam yàlla ba ca des mu bind ca dégg nga ma e, wéetal gi nga xam ne dégg nga ma moom la ñuy wéetal yàlla at tawxidu laa ilaha illa allah muhammadu bi amee nag foofu mooy bindu leer ga léegi nag Sidi Abubakar ni diggante bindug leer gi ak bindug jëmm ji dafa am lu ca nekk te ca la duggoon moo tax ñu ngiroo nee na ku ñëw wax Abu Yazid al-Bastami yu nee ci diggante boobu la duggoon waaye bi nga xamee ni dégg nga leer yi bëgg na ko lakk mu daw ndax nee na diggante boobu xaqiqatul muhammadiyya ci diggante boobu la nekk nee na tur bi nga xam ni itam kenn du ko jagoo ci jamono ku dul fardul jaami nee na ci diggante boobu la nekk moo tax mu ne abu yazid al-bastaami yu dafa wax ni غصن لجة المعارف طلبا للوقوف على حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بيني وبينها ألف حجاب لو دنوت من الحجاب الأول لاحترقت كما تحرق الشعرة في لهب النار ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يعرفني حقيقة غير ربي Abu Yazid al-Bastami dafa wax ni xuus naa ci lëgg-lëgg xam suñu borom tabaraka wa taala ngir bëgg a xam xaqiqatul muhammadiya fu mu nekk ndakate bi loolu amee diggante fi ma nekk ak fa xaqiqatul muhammadiya nekk nee na ndakate diggante ba junni kiiraay dox na fa te nee na benn kiiraay ba rek bu njëkk ba su fekkoon ni jege ñoon naa ko danaa lakk ni nga xamee noonu la ñuy lakke dégg nga ma karaw ci safar loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni laa yaarifuni xaqiqatan xayra rabbi loolu tax yonent bi wax ni kenn xawuma dëgg-dëgg xam ku dul sama borom tabaraka wa taala waaw léegi bindug leer gi dikk diggante bi nga xam ni dégg nga ma it mooy diggante bindug leer ak bindug jëmm ji dikk na mu ne waaw ba ñu ko bëggee bind ci jëm ji nag la ñu ko doon binde fan la ñu ko jële Sidi Abubakar ni borom am nañ ci werante ñii ñoom ci seen wàllu bopp du ñu wax ni maa ut tuufaan ba mu sànnee la ñu binde yonent bi sallallahu alayhi wa fa lañ ko jële ñii ni ñoom ci seen wàllu bopp min mawdiil kaabati duxiyatil ardu nee na ca place kaaba comme tàndalu dent suuf si foofu la commencé nee na foofu lañ ko jëlee am ñeneen ñeneen ñu wax loolu ñi ci des ni déedéet min mawdii qabrihi sharif ca place ba ñu ko suul fa lañ ko jëlee ñu ne waa ba ñu ko fa jëlee nag fu ñu ko yóbbu ñu ne fa ujina bi maa tasnim fi main anhaari janna xatta saarat ka durrat albaydaa wa laha shaabun azim mu ne ko fa jalee ñu yóbbu ko dégg ci ndox ajjana yi ñu noot ko ci ba nga xam ne dafa mujj amee ceeñeer lu nga xam ne lii dafa mel ne ceeñeeru jant amee taaru wurus boo xam ne yooyu dafa weex loolu moo tax Sidi Abubakar wax ni turu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daanaka boo ko dee seet mooy secret bindu doomu aadama leene ndax turu yonent yàlla Muhammad mooy secret bi nga xam ne moom la ñu bindee doomu aadama ndax nee na miim bu njëkk gi moom ci wàllu boppam dafa niroog bokk nee na adam dellu gi ci wàllu boppam dafa niroog dënn nee na miim gi ci des dénga ma dafa niroog biir nee na deel gi dafa niroog ñaari tànk mu ne nag mbooleem xaraf yooyu yëpp dafa am maqaama yu nga xam ne ñoom la ñu làq nee na xaraf bu bi liki miim gu jëkk gi nee na wa maqaamul miim al uulaa maa min nabiyyin wala rasulin illaa xuliqa min nuuri talaatihi albahiyya fa huwa al aslu wal kullu minhu far'un bilaa shakkin wala ihaamin wal xaawu xadam dellu gu ximan liman aamana bihi wattabaca millatahu alxanafiyya wa xaashaa man sadaqa bi risalatihi wa tamassaka bi sunnatihi yudaamu miim gi ci des wa maqaamul miim al uxraa miftaaxu rahmati yowma alxaradi ala aalimi alaswaar alxafiyya waddaalu dacwatu shafaacatihi li ummatihi fa axbaaha lahu fi cilmi alcaliim alcallaam loolu moo waral tax Seydil Hajj Malik radiyallahu taala anhu képp ku nga xam ni kii yow ci sa wàllu bopp ba ngaa di waxam du mën a jàppandi ndax xilaasu zahab bii nga xam ni moom ci wàllu boppam moom la taalif dafa am ay téere yu nga ni yii téere yi la ci la sukkandiku ku nga door ko taalif te mboolem téere yi mu sukkandiku yëpp si daw ba ko tudd na leen ca taqrir ba ndax nee na téere yi nga xam ne ci la Seydil Hadj Malick sukkandiku Mawaahibu Laduni yi ci la bokk Siratul Halabi yi ci la bokk Shafaali Seydina Alqaadi Iyaad ci la bokk Wasiratu Seydina Ibnu Hisham ci la bokk Qaamus ci la bokk Lisaanul Arab ci la bokk Taajul Aruus ala Sharhil Qaamus ci la bokk yëpp Seydi Abubakar tudd na leen dégg nga ma ci taqrib bi ndax wax na ne inna almawaahiba taati min mawaahibikum wa sharha walxalabi taarixu qad xadara mu di mawaahibu Laduniya dégg nga ak salatul xalabiya alchafali saydina alqaadi iyaad mu ne inna shifaa shifaau li suduri fa lam tabqa alxawaaija fi yaquba xaytu jara siratu sayidina ibn hisham mu ne wa siratu ibn hisham xayru baqiyatin adda ictimaadika fi laadaabi wannudara qaamus ak lisaan arab mu ne qad kunta mujtahidan fi lxelli muctabidan ala lisaani kada alqaamusu maqtasara تاج العروش على شرح القاموس من تاج العروش من الإيضاح جئت به ونشر الطي مما حير البشر yii wax ñëpp dañ ñoo Seydil Hadj Malick a dëppoo yaakaar naa ni képp ku nga xam ni kii da nga fas yéene yow ci sa wàllu bopp waxtaan ak ñi nga xam ni ñii da nga bokkaaleeg ñoom dégg nga ma ci wàllu diine ji bokkaaleeg ñoom ci wàllu tariqa bi bokkaaleeg ñoom ci wàllu Seydil Hadj Malick bokkaaleeg ñoom ci wàllu Sidi Abubakar am na leneen loo leen man waxtaane ba seen xol bëgg ca te doo fa tudd xam ne dégg nga war loo fa tudd war fa jëfe ne war loo ko fa jëfe ba mbir ma jeex nii mooy programme bi nga xam moom la soxla waaye tàyyi nañu léegi ci affaire u dégg nga ma xeexe ki xuloo ki xastee ki wax du ñaaw tàyyi ci nañu dimbali lillahi wa li rasulihi lépp lu ci waaye déggati te ñu di ko wax ci suñu wàll su fekkee lu baax la fa lillahi alhamdu wa shukru su fekkee dégg nga du du rafet itam na nga déglu te muñ soo mënee muñ jógee ca place ba di dem sa yoon lii rek la ñu santaane ndaxte l'islam bi ak tariqa bi ñi ko amee woon di ko doxal ci jàmm lañu ko doxale woon kon ñun itam jàmm jooju ko seen waroom doxale woon nañ leen ci dimbale ñu doxale ko ci jàmm waaye lislaam ak tariqa kenn mësu ci xam boo xam ni xeex a kuloo wala xase wala wax ju ñaaw loolu nañ ko teg ci suuf mbirum adduna sax ku ca bëgg doxal loo xam ne yow ci sa wàllu bés nga yéene mu rafet da nga cay dindi xuloo dindi ca xeex dindi ca xase dindi ca wax ju ñaaw waxtuma laa la wàllu yàlla mu manti doon duñu wax ni maamun da ngay roy ci sa yilimaan ci sa jamono julli wal maamumu yaqtadi bi imaamihi fi salaatihi comme Seydi Aboubacar dag dégg nga wal imaamu nañu ko roy ndax moom it dafa royoon Seydi El Hadj Malick kon ñu nit nañu roy ci moom te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañu ko dégg nga ma du dégg njàmbaar mu ne ak njàmbaar de am na lu ko nit ñi tudde waaye man tuddewu ko noonu ndax nit ñi ñoom defe nañ ne képp ku nga xam ne kii yow ci sa wàllu bopp yaa ngi jëfante ak nit ba man ko noot ca di jëfante moom la ñu tudde ak njàmbaar waaye man tuddewu ma loolu njàmbaar li ma tudde ak njàmbaar daal moo di lépp loo xam ni moom ci wàllu boppam dafa te ñëpp képp ku nga xam ne kii yow ci sa wàllu mën ko rek yaakaar naa ne yaa mën ñëpp ndax man mën na dégg nga nekk jàmbaar mën a duma nit ñëpp waaye waxtu bu mere nekk dof kon nag man li ma moom ci wàllu boppam dégg nga ak njàmbaar moo di li tey ñëpp képp ku ko mën yaa mën ñëpp mu delloo ko ci aaya ja wal kaazimiina al-ghayza wal aafiina ani n-naas wallaahu yuhibbul muhsiniin képp koo xam ni mën nga yow ci sa wàllu bopp waxtu woo meree wan na ko ba kenn bañ ko xam ne ci yow képp ku la tooñit yow ci sa loolu nga mën ko jéggal yaakaar naa ne daal njàmbaar ga daal foofu la nekk moo tax nag mu ne innama shadidu man yamliku nafsahu inda alxadab am njàmbaar dëgg-dëgg moo di koo xam ne waxtu woo meree daa mën a moom sa bopp ba nekk nit loolu kon nag nañu góorgóorlu ñu dolli ko ak muñ lépp lu ñu dégg ñu wax nu ko incha allahu taala nanu ko muñ te bañ ko tontu sunu xamee ne mënatuñu muñ te suñu fa toogee tontu nooy jógee ca place ba te dem ndax mbir mi xeex a xuloo xarteeg wax ju ñaaw du ko sotal li koy sotal moo di ak muñ rek seeni waroom yi bu amee wala déng ci muñ déngama la ñu mas di béy dégg kon nag ñu ne tam nañ leen jéem a ma roy ci loolu gannaaw loolu itam suñu bokk yi nga xam ne ñoom ci seen wàllu bopp ay jigéen lañu daan na am loo xam ne dégg ma daan naa ko waxtaanee ñoom seen ci seen digganteeg seeni borom kër ndax dafay fekk jigéen toujours digganteeg ak borom këram. li suñu borom wax rek moo ci nekk ar rijaalu qawaamuuna ala nisaa'i ala kulli xaalin góor ñi ñoom ci seen wàllu bopp ñooy taxaw mbirum jigéen ñi ala xaalin bépp góor mu manti doon yàlla jox la jabar yow ci sa wàllu yaa ko war muñal war ko yërëm war ko dimbali yow mi borom këram nag soo defee loolu ba noppi moom mi jigéen it war na góorgóorlu ci topp si ndigal lépp loo digal mu def loo tere mu bàyyi ndax sëy dafa foor lool sëy rëy na ci yàlla lool xëy na na ci nun waaye lu rëy ci yàlla la ndax wax nañu ni suñu maam aadama bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala daf ko bind te mu bindal ko dégg nga ma suñu maam xawaa ci faaru càmmoñam fekk ku muy nelaw bi nga xamee ni suñu maam xawaa ci wàllu suñu maam aadama yeew na ci gis suñu maam xawaa dafa dal di bëgg rek ci moom dal di ko tàllal loxo malaayika yi jàjj ko ni ko ma yaa aadamu ndànkul qaale walima lu tax may ndànk waxat xalaqahu allahu lii te yàlla bind na ko pour man ñu ni ko xatta tu addi ma raha négal ba nga jox ko cana qaale wa ma maaruha ana luy cana mi ni nga qaalu an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñii ni ñetti yoon la ci julli ñii ni ñaar fukki yoon ñii ni téeméeri yoon moo tax nag say for na lool woyof na ci ñun waaye lu rëy ci yàlla la am na baat bu ma leen ci daan wax toujours daan naa leen wax ni toujours olof ñu wax ni ku ñuy diri doo taamu fu sang dong di jaar gannaaw mën a doo mucc ci ñu dala diri kay fu ñu la jaarale jaar fa rek waaye fii la sama dong di jaar du jaar fii bu mu ci am mu ngi leen di diri ku rek topp ci seen i kër